ñëw ci blocus bi am na euh, euh, am kër Ousmane que mm-hmm. temps bi tamit xoj na yi te des nañu ñaari euh, ne si nii mm-hmm. ko war ko vider mm-hmm. blocus bi noonu ban lecture nga ci am c'est du gangstérisme hmm? ñoom trouble à l'ordre public wax su fekkente ah, lu mu wax waaw léegi lu mu wax ministre de la dafa nekkoon di semé di def trouble ñu ah, jàpp ko yóbbu ko këram téye ko waaw ah, kuy semé trouble kay kenn du la yóbbu sa kër fuñ la yóbbu fuñ la yóbbu yaa ma ko gën a xam kuy semer trouble. Mm-hmm. naka la nit di semer trouble nga ne dafa semer trouble Kolda am ay nit ñu dee. Mm-hmm. te nga am yow la loi sur le terrorisme. Mm-hmm. loi sur le terrorisme ñu ne ku organiser manifestation yow mi nga xam ne yaa def déclaration bi yow ma ca bokk ma ca nangam nangam dañ la koy toppee. nga dem fekki ko kungal jël ko. ne dafa am ñu mu àndaloon ñu am ay ngànnaay et cetera et cetera nga jël ko dugal ko ci oto ñëw déposé ko këram cak-cak ko après yow léegi nga ne réew mi dafa am koo xam ne dafay indi trouble waa léegi est-ce que Ousmane Sonko 20 morts yi Ousmane Sonko génn na këram non yàlla du nit de. Mm-hmm. te nga réew kenn du ko yor ci caaxaan ak waxi nax sa xandang il faut que ñu bàyyi di caaxaani réew mi ce qui se passe à kër góor gi ñi ma àndal ñuy laaj leen léegi bi ñuy dem ci ku ñu doon seeti kër góor gi da ngay obligé def le grand tour. tey suñu doom yi nekk au niveau de kër góor gi booy jàngi sax oto bi dañuy koy dañ bu booy di jàngi dañuy arrêté oto bi di ubbi maal bi di xool lan moo ci nekk nag comme si ñun kër góor gi dañoo nekk état de siège. Mhm. waxuma la nag business yi nga xam ne ñoo nekk ci tali canal horizon boobu ñaata business ñoo fa nekk tey jii ñooñu mënuñu liggéey. ñaata société ñoo fa nekk mënuñu liggéey pourquoi parce que tout simplement benn nit muy Macky sàll moo décidé non Ousmane Sonko mii dootul am jàmm mais yàlla nag da ngay dogal li ngay bëgg yow. Mm-hmm. yow mënoo def li nga bëgg ba pare am. li nga la neex. mënta nekk mais mais am ma bëggoon ñëw foofu tamit. Euh, mooy mooy sa diggante ak Ousmane Sonko. bala ngaa ñëw ci loolu bala ngaa ñëw ci blocus bi bala ngaa ñëw ci loolu ah, après nga posé sa question mais ci blocus bi tëj bi ñu ko tëj nii euh, ah, que yaa ngi ciy profito euh, génn di wax Ousmane Sonko ñëpp xam ne ni Pastef waxatuñ en tout cas terrain bi libre na yow yaa ngi ciy profito pour am ci benn tamit benn taxawaay bi politiquement. mais pourquoi xalaatul woon loolu ci législative bi pourtant aw ma woon candidat aw woon liste important pourtant dama jóg di xeex je me bats pour la démocratie et je me pour la liberté de Ousmane sonk hmm. Ousmane Sonko dafa am parti man ma am suma mouvement. Hmm. mu bëgg dem deux mille vingt quatre jiite senegal ma jàpp ne man maa gën a yeyoo pour jiite réew mi parce que moom day dajale impôt alors que man maay liggéey di ko jox impôt. d'accord kon liberté moom daf ma jaral man ma taxaw takk suma ndigg pourquoi parce que tout simplement jàpp naa ne waruñu nangu kenn ci réew mi liberté ñu koy salfaañe et ce qui se passe avec Ousmane Sonko c'est du banditisme d'État du ri c'est rien d'autre la preuve la mm-hmm. preuve ñoom ñooñu ba ñu dekkee di conférence de presse kenn mënul expliquer li ñu wax dem nañu sax ba ne oui Ousmane Sonko mënuñu ko jàpp euh, donte jugé nañ ko parce que euh, rédaction wu acte de jugement bi. notification jugement bi parewul. Mhm. waaw Mame Mbaye Niang euh, notification jugement xam nga ci ñaata fan lañ ko def. Mhm. trois jours de semaines dem nañu appel. Mhm. nit du caaxaan ce dossier de cette histoire de Adji Sarr. caaxaan la. nit mënoo koo toppee viol ak menace de mort. daal di teere ji nan danga nga naan da naan yuuru yuuru xel bi yuuru booy bi da naan xelam yëf yi yëf caaxaan la. Mhm. et caaxaan nee naa leen jàmm ji ci réew mi ci ndodd kenn dong la nekk muy président Macky Sall tey bu ne woon opposant yi muy xoqatal di dal ci seen kaw ngir éjecté leen ci course présidentielle bàyyi na ko réew mi gën a am jàmm bu ne woon. moom bokkatul troisième mandat parce que moom moo ko waxoon bàyyi na ko teg na ko ci suuf réew mi gën a am jàmm. parce que nag jàmm la réew mi soxla et Sénégal suñu richesse mooy suñu stabilité. mais mais mais fi ma doon fi ma doon bëgg ñëw sa diggante ak Ousmane Sonko mooy dafa moon benn moment ñëpp jàkk jàkkaaroon ne sawara ak caas du ñu laale ñu gis benn jour Ousmane ko def euh, déclaration mu ne président Bougane attaqué nañ ko Kaffrine euh, bu cité ko ci ñi nga xam ne ay injustice la. Mm-hmm. yow tamit nga def après benn sorti massawu ko ci li nga xam ne mu ngi dund comme jafe-jafe qu'est-ce qui a changé entre temps ba seen diggante léegi mu mel ni diggante bu ratax ñaar. gën a ne maak moom dañoo bokk lenn li ñu bëgg mooy taxaw ak dind lii fi nekk rek gis nga Moustapha bu dawal yàggee rek gawar feeñ. bu njàpp yàggee gawar bu bu jàpp yàggee. Mm-hmm. damay dawal. Mm-hmm. bu njàpp yàggee rek gawar feeñ. Mm-hmm. lu ne wax nañ ma ko fi parce les gens ne comprennent pas comment un entrepreneur mais Bougane il pouvait rester dans son coin mais Bougane lu muy daw bay daanu Bougane lu muy wut. non mais dañ jàppoon ne kay mënoo sax digérer Ousmane Sonko. non mais mooy li ma la expliquer parce jàppoon am na jàppoon ne man ak Ousmane Sonko waruñu jegeyantoo. Mhm. c' y a des gens qui réfléchissent comme ça et ça c' est l'œuvre de politiciens professionnels parce que pour ñoom jàpp nañ ne man ak Ousmane Sonko ñoo bokk benn mindset c' est quoi c' est combattre le système. c'est quoi c'est combattre les animateurs du système c'est combattre ñii nga xam ne ñoo toll indi Sénégal ci situation bi mu toll tey waaw bërki démboo Ndiaye Macky Sall wootewul dialogue ña demoon ci dialogue bi gis nga fa ku mosul yow ci nguur gi gis nga ku gis nga fa ku mosul ñam ci nguur les gens étaient là-bas pour sauver ce système parce qu'ils savent que système bi ay ay fanam jeex na et moom Macky sàll mu woo leen ñoom waa système bi ne leen kaay leen ñu sauver suñu système bi moo tax ñoom ñëpp dem nañu mais ñun ñi nga xam ne. suñu yitte lenn dong la mooy xeex système bi mais ñun demuñu ca loolu. Mm-hmm. ok mais mais gis gis nañ ne tamit comme dafa wax léegi ñu ñu accéléré ko tuuti. Mm-hmm. F24. Mm-hmm. am nga fa taxawaay boo xamante ne sa siège sax fa la ñuy defee rencontre yu mujj yi. loolu gars yi ñu ngi dem di ko couvrir. Euh, mu am benn bugaan boo xamante ne actuellement dafa nekk au devant de la scène politique mën mën nañ la su séntu suba yeewi askan wi. non euh, je ne suis pas de yeewi askan wi. mais mën nañ la fa séntu non non nekkuma yeewi askan wi mais ñoo bokk li ñuy xeex. non mais tontu woo sama question mën nañ la gis suba yeewi askan wi man pourtant tontu naa la. non non tontu dama ne dama ne. Mhm. maak yeewi askan wi dañu bokk li ñuy xeex. Mhm. benn yitte la ñu am mooy lu fi jëlee Macky Sall. organisation F24 des fois ñu def rencontre kër góor gi comme tey. Mhm. ñu ngi def rencontre PRP. fii yeewi di defee ces rencontres donc li am solo mooy ban taxawaay lañu ñu war a am. lan moo war a doon ñun suñu taxawaay pour sauver cette jeunesse sénégalaise Moustapha benn yitte rek laa am nu fi Macky Sall lu jóge ak ñi mu àndal parce que jàpp naa ne dañuy yàq senegal et pour loolu képp koo xam ne am na nga ak man ci xalaat boobu ak ci yéene boobu jàpp naa ni dañu war a taxaw joxante loxo pour xeex boobu mën a yegg gis nga ñaar moo am. soit nga poser acte buy dooleel opposition bi ñu xam ne yow ci opposition bi nga féete soit nga poser acte buy dooleel Macky Sall ñu xam ne yow da ngay xeex opposition bi et ci fànn woowu rek lañ nekk moo tax ma wax la sànq ne la euh, bu euh, njàpp yàggee gawar fay mhm. pourquoi parce que dama am lu ma gëm je suis un de conviction li nekk ci suma kanam loolu rek moo ma intéressé li nit ñi wax bàyyi bàyyiwuma ci xel li ci sama kanam dong moom moo ma te dara du ma détourné. pourtant gars yi dañu jàpp ne parfois day am ay calcul def ah comme ni ko Mahfouz waxee sànq Ousmane Sonko xaw na écarté xaar ma foncé occupé espace bi nga xam ne vide na. su ko defee yi di gis bugaan bugaan un peu partout. bugaan bugaan bugaan bi bi finalement ñëpp daal di koy adoubé accepté ko. waaw ah, mais xam nga wax naa la sànq nee naa la boo fekkee ne mën nga réfléchir loolu lu tax réfléchir woon ci législative yi ne bugaan amul liste amul. amul amul candidat non non dañu ko gis a fës pourquoi réfléchir wul leen ne ne jamono législative yi Bougane amul liste amul candidat gëm sa bopp amuñu liste amuñu candidat mais ñoom ñëpp wàcc nañu ci terrain suñu responsable yëpp dañoo wàccoon ci terrain bi ñoom ñëpp ils se sont pour le triomphe de l'opposition et ce combat lu ngeen bëgg parce que tey xañ nañu Ousmane Sonko mënul génn buntu këram après man ma toog suma kër di ko mettitlu non bu ma ko defee mais c'est parce que yëfi naa fekk la loolu fekk la man du ma fekk bàyyi. man gaynde laa du ma fekk non man duma ma fekk donc lépp lu may xeex dama ci dem ba nit ñi comprendre ne lii maa ngi ja. tey laa gën a dugg ci àll bi suba maa ngi reefan maa ngi euh, gaawaan maa ngi Kër Sambakan maa ngi Baba Garaas ginnaaw suba maa ngi nangal ma mais mais àll bi tamit bugaan. bëgg na bëgg na Baba Garaas moom bëgg na ko daanaka <laughs> fi ñu toon xanaa war nga mën a tudd dessiner carte Sénégal loolu loolu ndax dina fay. mais bugaan boo déggee bugaan rek muy ci dëkk bi. Ah pourquoi fay <laughs> euh, li ma li ma grandir. li ma màgg ci ñeenti at yu mujj yi loolu alal du ko joxe université du ko def ci bopp nit déedéet chance rek la et chance dong laa am. pour aller côtoyer les Sénégalais chance boobu laa am et je vous dis j'ai grandi d'au moins parce que gis na li Sénégalais yi di dund gis na Sénégalais bi nekk ci jafe-jafe nekk ci ndóol mais garder di am gis naa Sénégalais boo xam ne boo ñëwee toog ci këram mu tegal la li muy añee wóor na Xaadimul Mustafa doo doo ko lekk et pourtant ce sont ces gens-là ñu lañu bokkal ñoom réew mi kenn gestuwu leen kenn bàyyiwu leen xel te bu ëllëgee ku leen soxla daw jëm ci ñoom nee naa la am na centre de santé bu ma lay wax euh, case de santé bu nekk euh, commune u Kàccot Njuujeen dinaa la wan vidéo bi ci pajas la ñuy teg pajas laa wax de pajas la ñuy teg jigéen ñi ci lañuy ñuy wasin quartier sëñ Mansour fii fii nii Tiwaawoon Pël bu ma la wanee ndox mi bu ma la wanee ndox mi ñuy naan nga taf sa gémmiñ mhm. ci teen la ñuy naan dañuy wëgg jigéen ñëpp am biceps ku la ci nuyu bu la gësëmee nga xam ne gësam na la et je te dis ça c'est ici à Dakar et pourquoi parce que tout simplement dafa am ay nit ñu bëgg situation boobu mu perdurer ci réew mi mhm. ay nit ñoo xam ne xoolal mhm. lii regarde xolol ndox bi gis nga ndox bi ñuy naan gis nga gel bi ni muy wëggee mhm. gis nga ni muy tiiree affaire bi te gis nga lii yëpp xoola mhm. lii yëpp ay ay ay ay kii la lii yëpp gis nga lii yëpp ay teel la lii Kër Massar la Tivaouane Peulh Tivaouane Peulh Tivaouane Peulh c'est c'est mais c'est énorme waaw mhm. mais pourquoi ces gens ñu war a nekk ci situation boobu nga dem jam ñaajo ñu jël cent cinquante six milliards def ko ci stade Moustapha naan la non non non soxla nañ ko parce que ñun ñooy champion d' Afrique. ok dañ bëgg organiser coupe d' Afrique. d' accord léegi coupe d' Afrique yow boo ko organisé ñi nekk ci àll bi te amuñu courant amuñu ndox lu mu leen jariñ ñoom yow yaa am problème mu coupe